première émission bi ma njëkk def euh, fii à Walfadjri ñu ngi ko doon def salon d'honneur la bu ma juumul dama ni il va falloir que ku nekk nga continuer waat ci sa posture la distance critique bi nga xamante ne nit ñi surtout ñi nga xamante ne ñooy commenter l'actualité dañ ko war am vis-à-vis des gens du pouvoir nañ ko teel am mais malheureusement malheureusement ñenn ñi bi ñuy wax dangay yaakaar ni sax parce que en fait ñenn ñi ils défendent mieux le parti au pouvoir que parti au pouvoir euh, lui-même ñenn booy xool di leen déglu ci ñenn ñi commenter l'actualité booy xool di leen déglu ah, euh, nga doon journaliste wala chroniqueur booy xool di leen déglu ñoom nu ñuy défendre le camp du pouvoir le camp du pouvoir sax mënul rivaliser par rapport ak ñoom te boo leen di dégg dafay mel ni amul lenn loo xamante ni di nga ci ne attention attention boobu nag moo tax may wax parce que jàpp naa sénégalais ba ñuy voter bu nekkoon ay appel à voter ñooñu di ko def seen seen seen seen kaddu mënoon na tax ba sénégalais yi tànn mais ñooñu bu nekkoon ñooñu seen kaddu dafa doon yegg ci sénégalais yi sénégalais dañ leen doon bàyyi xel je pense que ni Sonko du nekk au pouvoir je pense que ni Diomaye du nekk au pouvoir donc refusons d'avoir une mémoire bu sélective wala bu courte te aussi nañuy fàttali parce que gis nga ñëpp képp ku yore pouvoir nekk nit buñ la waxul déet boo moytuwul di nga doxal doxaliin boo xamante ni dafay dem ba dafay dafay wuuteeg li nga xamante ne moom nga digoon askan bi pour ñu mën a jàppale ñi fi nekk parce que man ñii bu ñu faloo man euh, réussir seen seen mission mais man dam ci sant yàlla awma ci benn benn benn benn benn benn benn en fait ban ban ban yéene bu ñaaw lay am si ñi échoué mais tey jii dañu bëgg jël nit ñi ñu ni ok d'accord dañu leen di catégoriser comme ni ñu ko doon defee ak Macky Sall cest dire même pratique yi ñooy ñëwaat Macky Sall au lieu mu déglu li ko nit ñi doon wax ces voix discordantes yi ñu tuddee woon ñenn ñi au ñu déglu leen ak xel ak intelligence non non dañu leen jël préféré def leen ay ennemis mais est-ce que dañu mën di wéy à chaque fois di dem dans la catégorisation ni diw yow ci projet bi nga bokk. yow diw da ngay critiquer projet bi donc yow temps yi dañ laa jënd yow temps yi da ngaa soof yow temps yi da ngaa lii yow temps yi da ngaa laa démb yow ba ngay wax di jël position man dama leen di fàttali rek man sama bopp yaakaar naa kenn fàttewu Pape Makhtar Diallo mooy kan 2021 laa démissionné à la Sen TV ba démission di jafe ba démission di jafe à la Sen TV 2021 laa fa démissionné et pourtant parfois da ngay dégg nit message la wala kii la ni la waaw yow temps yi da ngay jàppale Bougane xaw ma lan ak lan ak lan ak lan wala nit di la naan noo temps yi yow danga nga far ci opposition bi pour lan ay du ko bu nekkoon ay privilège ak di xaar ku ma nominé xanaa kon ma toog di xaar man Macky Sall euh, du moins euh, ñi fi ne mais man loolu sama conscience en fait même bu ma ko doon jéem mënu ma ko je peux pas le faire bu ma àndee ci benn mbir gis ni lii mooy lu logique dam koy def dam koy wax mais bu ma ci àndul mënu ma ko maquiller c'est pas parce que les gens se sont battus ne ñenn ñi ñàkk seen bakkan pour mettre en place un projet ñun suñu responsabilité en tout cas li ma jàpp mooy ñun suñu responsabilité xam nga lan la mooy fexe sàmm projet bi sàmm projet bi nag mooy ci dérive yu nar a jug ñun attention lii mënuñu ko accepter comme li ñu nekk di gis nii ku nekk fi nga nekkoon comme ni ko Sonko waxee du ay question de jëli nañ ko wala jëliñu ko c'est pas le débat. parce que encore une fois donc demain si Macky Sall décide euh, lu mu tudd sax d'appeler à voter pour euh, le camp du PASTEF les gens vont l'inviter ni ko kaay ok parce que euh, woote nga ni kaay ñu voté PASTEF donc tey jii nit ku nit ku kii nga wala les gens me diront que loxo yi set nañu wax mais loxo yi set mooy li ma wax léegi loxo yi set ak loxo yi tilim kenn waxagu ko loolu yoon moo koy wax te jamono jii nii jusqu'à preuve contraire man dama jàpp ni. ñi nekkoon ci Macky Sall kenn loo xam seetu ci parce que non seulement bu nekkee da nga def def nga mais boo deful tamit def nga parce que tout simplement da nga cautionné par le silence complot bu bu bu bi ñuy def ak euh, Ousmane Sonko ba mu jur fi ay nit ñu ñàkk ñàkk seeni bakkan mais lan moo leen tere woon jamono joojule ñu génn taxaw ne hey président de la république ñun yow nañu àndal mais lii ngay def nii fu mu nar a yóbbu réew mi ànduñu si tey ànduñu si ëllëg te duñu si ànd tey léegi ñu bëgg ñu ni ok léegi ñun nañu intégrer toutes ces choses là xam paramètres yooyu yëpp ba noppi continuer di naan way lii transhumance la lii du transhumance là n'est pas la question image dafa am solo te yenn image yi encore une fois insulte la pour la mémoire de ces gens qui ont perdu leur vie pour quand même ñu mën a teg ce projet et ce projet amul droit di def leneen lu dul réussir donc sama père yi aussi ngay chroniqueur wala ngay journaliste dam lay woo à plus de retenue et aussi ñu delluwaat ci li nga xamante ni mooy suñu liggéey parfois quand j'entends certains parler damay naan mais attends est-ce que démb kii laa doon dégg man ak moom ñuy wax lii ak lii ak lii ci même question yi démb nga taxaw di ko défendre tey jii ngay wëlbatiku di naan da ngay attaqué wala da lii wala da ngay laa di ko yàlla nañu dimbali ñi fi nekk te lenn kase nañ leen mën a dimbalee mooy li ñu doon def ñu kon ne di ci ne sans bañ si xaar dara de manière et de façon désintéressée désintéressement total nekk au service exclusif du peuple sénégalais yaakaar naa moo war képp kiy commenter l'actualité mais far ci nguur nguur gi nga xamante ni am na déjà ay communicants man je ne trouve pas ni loolu moom moo war a doon tànku tey ñi nga xamante ni ñooy commenter l'actualité et malheureusement malheureusement il suffit ngay xool lii xew ci actualité bi ngay dëgg yenn commentaires yi tu vois que ni cette distance critique n'existe plus chez certains lu ñëw ñu expliquer ko lu ñëw ñu justifier ko lu ñëw lu ñëw lu ñëw ñu expliquer ko ak justifier c'est normal aussi bu nekkee. yow amuloo suffisamment de courage parce que bu ma paree vidéo bi nga dégg benn fës jël téléphone taxaw ni waa Pamata moom léegi temps yi manipulation la jël euh, Modou Fall aussi jël vidéo am taxaw naan Pamata euh, diw moo ko jox lii diw moo ko jox lee diw moo ko ñeneen ñi moom taxaw di saaga xaw ma sax commentaire est-ce que nekk ñu commencé di saaga wala ñeneen ñi naan kii daf commencé soof donc boo amul suffisamment de courage pour accepter ces critiques là ak ñu lay wax naka su dul noonu doo def sa liggéey te boo deful sa liggéey convenablement conséquences yi mooy. boo moytul dañ na duggaat ci même situation bi nga xamante ne moom lañ fi fekk depuis 1960 te loolu musiba la musiba la de musiba la donc loolu parenthèse la mais parenthèse bu ama ama am solo parce que man souvent bu ma dégg homme politique yi loolu loolu mooy gën a métti en fait seen discours yi nu muy changé mu nga dégg Abdou Mbow mi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon au pouvoir nga leen di dégg ñiy wax nga dégg euh, le le l'ancien premier ministre Amadou Ba. mu ñeen ñi bëgg présenter comme étant un un un un lu mu tudd euh, un opposant responsable mais Amadou Ba nga xamante ni il était pour il était pour que ñu dàq les élections présidentielles silence am rek moom silence Amadou Ba bu complice boobu moo tax ba ñu mujj dee ci élection présidentielle yi dee parce que s'il avait pris ses responsabilités et les assumer pleinement ba Macky Sall ñëwee dañuy dàq élection da koy naan monsieur le président man je suis le candidat de benn Bokk Yaakaar je refuse que ñu dàq cette élection et tirer leen toutes les conséquences mais il l'a pas fait il l'a pas fait fu mu dem dafa doon wane que ni ô combien il reste fidèle ak ak ak Macky Sall que amul benn benn benn benn objection que ñoom ñaar amuñu benn contradiction waaye léegi ñu bëgg ñu gëmloo ko ni moom oui parce que ci élection yi mu ngi tenir un discours responsable tenir un discours responsable aujourd'hui yomb na mais est-ce que amoon nga démb un euh, benn attitude attitude bu responsable mii moom di ñii fi nekk ñëpp laa wax ñëpp ñëpp ñëpp waa Benno Bokk Yaakaar ñëpp amuñu kenn koo xamante ni tey jii bu nekkee genre yow nit nga quoi am nga yu bëri yaa ko war a interdire sa bopp kenn sax waxu ko interdire mais yaa ko war a interdire sa bopp et de la même façon ñii tey jii nekk ci ku jóge ngay Barthélémy Dias ngay ngay ngay ngay Thierno euh, euh, du moins Thierno Alassane kese laa fi gisagul moo bañ a ànd ak ñoom ngay Barthélémy Dias ngay euh, Thierno Bocoum ngay Pape Djibril ngay keneen ak keneen ak keneen man je trouve quand mais xaw ma sax na laa ko mën a tuddee en fait tey jii yow ngay ànd ak Macky Sall parce que tout simplement da ngeen bëgg majorité loolu nag bu mënee nekk c'est parce que askan bi. ñi leen war a jàppale pour ñu mën a am cette masse critique bu forte parce que gis nga pour développer sa pays dañ soxla ay ay ay ay euh, lu mu tudd ay ressources humaines de qualité mais impérativement impérativement dañuy soxla une masse critique bu forte ànd ak yow ci dëgg boo deful naka sudul noonu wala boo defee naka sudul noonu ñu taxaw ni la hé lii nii ànduñu si tey ànduñu si woon démb te duñu si àndi tey boo defee lu baax ñu applaudir bu leen ko jarale bu leen ko jaxalu ñu noppi parce que aussi tu as été élu pour faire sax mais continuer di dem à la dafa dafa sax dafa dafa dafa xaw a doy waar quoi donc il va